ñooñu temps bi léegi mu jeex arama may mayal ces gens là mooy euh, nu muy ko expliquer mooy la question candidature unique d'abord xam nga euh, mais mais loolu man je pense que xam nga charte bu nekk coalition bu ne dafa am lu ko tënk balaa ngay attaquer coalition bi da ngay bàyyi ba mu def loo xam ne ah dafa waroo ak li leen tënk parce que bul fàtte ne quand ñun on est des entités indépendantes ku ci nekk da nga yor sa parti politique am sa objectif de conquérir le pouvoir balaa ñuy teg coalition Bien coalition bi du parti politique ça aussi sûr. il faut que ça soit très clair faut pas être trop exigeant pour la quoi une coalition c'est une coalition c'est une unité d'action plus qu'une unité d'action qu'une unité organique c'est vrai que se parti moom c'est une unité organique à cent pour cent mais coalition c'est ko plus une unité d'action qu'une unité organique c'est pas un parti politique ñoom ku ci ne da nga am sa parti am sa parcours am sa objectif am sa récépissé individuel ñu ànd pour défendre une cause ànd pour soppi donc ça il faut que nit ñi xam balaa ñu ñuy ŋàññ ñu def loo xam ne dafa woro ak suñu charte mais loolu ba léegi ñun amu fi ñu ngi sàmmuwaat ak suñu charte yi ñu ngi avancer ñu ngi dem li ma wax rek mooy troisième étape bi c'était très clair ni cité nga fi ñoo xam ne ca départ ba dañoo génn effectivement ils ont raison parce que ci départ bi tegal nañ leen li nga xam ne moo ñuy tënk ñu xool ko ne lii doy leen ñu dem. Mm-hmm. ils ont le droit et c'est comme ça. tout à fait c'est comme ça lu la neex tënkal ñi nga ñëw ci première séance bi ñoo ñu ngay cité fii ña nga fa woon dañ ñëw ne alors man lii ka ni ngeen ko defee lii ak lii doyuma ci. ñu ne ko baax na mu dem mais c'est comme ça mais charte bi li li baaxul mooy nga d'accord ci charte bi ba xam ne en connaissance de cause nëbbuñu ko kenn bind ko signé ko jox la nga war ko lire signe mais jeex na li ci nekk xam nga ko le problème donc yow le problème man balaa may mun a ŋàññ mooy ñu ne ko ah yow kat tu avais signé en connaissance de cause def nga ko respecté woo ko mais comme ñun dañ ñëwoon ci troisième point bi wutuñu candidature unique ku ne defal sa candidature mais loolu c'était écrit noir sur blanc kon loolu kañ wax dëgg yàlla déclarer sa candidature ci biir Yewwi ça ne veut pas que ay ay ay tamante de mag ay nangam ak nangam ça ne veut pas dire ça maintenant la question de la candidature unique sa débat ne s'est pas encore posé waaye balaa candidature unique di am mais candidat am ba pare foog nit ñi déclaré wu ba pare ba ñu xam pour dire man de mun naa wax ne candidat potentiel la mooy li may wax parce que man dama am démarche bu mu adopté woon pour déclarer sama candidature parce que je j'estimais que am na un certain nombre de paramètres sur le terrain yoo xam ne war naa ko am lancé woon naa sama opération de vente de carte ak de mobilisation ak de tournée nationale te bouclé guma ko hmm. c'est terme de ça laay mën def benn évaluation globale seet ndax sama candidature si opportune ou pas si c'est opportun ma dem ma xam ne j'ai des chances d'y aller donc man ngi ci liggéey bu pareegul ma ko nous sommes encore à six mois de l' xam naa léegi tey ma ferme waaw loolu parce que man dama bëgg am des éléments probants yu nga xam ne ci ngay ci ngay sukkandiku parce que élection du loterie une élection c' est pas une c' est pas de la loterie c' est quelque chose qui doit s'appuyer sur terrain on est en train de faire le terrain maintenant la question candidature le encore posé mais ça ne pas dire qu'elle va pas se poser léegi laissons les, les candidats tous s'exprimer. Le moment venu, le débat peut se poser et on peut rationaliser. Rien ne nous de rationaliser le moment venu. kii de candidature c'est quand? non non le dépôt non le dépôt c'est en décembre. c'est en décembre le dépôt c'est en décembre c'est bon. pour les déclarations. voilà waaw pour les parrainages c'est bon. 28 28 août. c'est le 28 août 28 août voilà ça c'est le parrainage c'est bon que chaque parti aille sur le terrain. commencer chercher des parrainages et c'est ça le sens de la coalition coalition bala am doole. ku ci ne li nga am nga indi ko soo utiwul. ne la a des gens qui dem uti voilà façon parce que fiche individuelle bi génnagul. c' est pas nga xam ne moom nga war a remplir. boobu moom jotaguñ ko te boobu la ñuy mais dem ci ay militants wax ak ñoom soo mënee am seen seen seen engagement nga am ko soo mënee am seen photocopie nga am ko loolu je pense que kenn interdire ko. dig waxtaan ak ñoom mais mais la question de la rationalisation. doy wax na ko wax na ko doy wax na ko mais gis nga c' est pas encore une question boo xam ne c' est dépassé non c' est pas une question tabou te man je pense que elle se posera un jour la question de rationalisation. il s'agit pas d' avoir un seul candidat. il mm-hmm. s'agit de rationaliser les candidats. Mm-hmm. de les rationaliser. Mm-hmm. c'est-à-dire d'en avoir le plus. Euh, le plus petit possible et que ça soit des candidatures yoo xam ne c'est des candidatures sérieuses qui ont des chances de gagner kooku je pense que le débat se posera que ça soit au niveau de Yewwi ou que ça soit un, un jour ou l'autre on pourra aborder cette question là mais fekk n'empêche ku ci nekk mun nga dem sur le terrain tu parles avec tes militants tu cherches tes candidats et la candidature de Maria